Là, c'est M. Ibrahim Sissé, sur le principal du CNG Rifal de Bambé, qui depuis quelques années euh, abrite euh, un jury du baccalauréat. Voilà, donc, euh, c'est aussi bien principal que, que pour le bac chef de centre, du jury 625. Là, nous Composons avec 301 euh, candidats. Euh, j'ai 625. 301 candidats, dont 147 filles et 154 garçons. pour le moment, à l'image de ce qui s'était passé euh, durant l'anticipé, on a enregistré un nombre d'absents de 7, 7 hmm. euh, dont 4 garçons et 3 filles. Ce qui fait que présentement, les candidats qui composent au centre euh, sont au nombre de 294, 143 garçons et 151 une euh, fille. Donc euh, le jury 625 est composé de trois séries. il y a la série L', donc les candidats sont au nombre de 97. Il y a la série L2, il y a 104 candidats. Et il y a la série S2, qui sont au nombre de, 100. donc, euh, nous avons pu démarrer les épreuves euh, à l'heure indiquée, à 8 heures, mhm. que tout était déjà en place. Les surveillants sont, sont venus. On travaille avec euh, trois surveillants par, euh, par salle. en plus euh, de ce nombre-là, il y a aussi des suppléants au cas, au cas où il y aurait donc, des problèmes. Eh, eh, eh, les forces de sécurité sont présentes. Vraiment, les conditions, nous estimons, sont réunies pour un bon déroulement de l'épreuve du baccalauréat. Donc, pas d'incident majeur Non, il n'y a pas d'incident majeur. vraiment, tout se passe bien. sinon, réitérer euh, comme euh, il est de coutume euh, pour chaque examen du baccalauréat, mhm. les recommandations d'usage, notamment les recommandations relatives au, portable. Mhm. Au portable. Donc, comme on le sait, vraiment la presse, vous la presse avait été sensibilisée, les parents ont été sensibilisés, les élèves l'ont été, même au niveau des convocations. On a précisé l'interdiction faite euh, du port du portable de tout appareil euh, assimilé. Mhm. On, veille sur ça, on continue à les sensibiliser et on espère que tout se passe bien. Mhm. Donc, euh, votre dernier mot par rapport à... le, dernier mot, nous souhaitons que le centre de Rifal, que le jury 625 ait les meilleurs résultats. Vraiment, nous souhaitons euh, une très bonne chance euh, à nos chers candidats, à nos chers candidats. Parce que, comme on le dit très souvent, même si actuellement on parle de ressources euh, naturelles, le Sénégal a toujours été caractérisé par la qualité de ses ressources, humaines. humaines. Voilà. Et puisque les candidats que nous avons ici, en fait, qui doivent obtenir le premier diplôme universitaire, donc, euh, s'ils réussissent, ils sont appelés demain à gérer le, pays. Mm. Et puisque nous ne pouvons compter que sur les Sénégalais pour euh, euh, développer le pays, on espère que vraiment à l'avenir, lorsqu'ils vont réussir massivement comme on le souhaite, comme on l'espère, vraiment puissent avoir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être nécessaire pour bien contribuer au développement euh, dont le Sénégal a grandement, besoin. Et pour TV qui, veut vraiment euh, faire tout pour que Bambé ait une télévision digne de ce nom Voilà, je crois que l'initiative est excellente. Parce qu'il y avait déjà une radio. Et maintenant qu'on travaille à obtenir euh, la télévision, même si dans un premier temps c'est par l'intermédiaire du, du web, nous trouvons l'initiative excellente nous encourageons véritablement Bambé, Bambé TV à, à, persévérer. Le meilleur est à, est à venir pour, le, euh, pour Bambé. ci cadre rek ci wolof lan ngay lancer ñi lay déglu. waaw ci ci wolof dal, donc di yëgal euh, euh, mbokki waa Bambey yi ne Fall ci bac 2019 bi moo teeru jour bi ñuy wax six cent am nañu ñetti téeméer yu teg benn yu waroon a defee fii seen euh, examen mu am ci ñoom ci euh, ñetti téeméeri ak benn téeméer ak euh, ñeent fukk ak juróom-ñaar góor téeméer ak juróom fukk ak ñeenti ñeenti jigéen lii di wane na jigéen ñi daal gàcce gàcce ngaalaama mm-hmm. parce que ñoo ëpp ñoo ñoo ëpp góor ñoo leen ëpp ëpp tuuti waaw léegi nag euh, candidat yooyu ah ñëpp ñëwuñu nag ñëpp ñëwuñu am na juróom-ñaar yu yu ci manqué ñeenti góor ak euh, ak ñetti jigéen waaw léegi comme ni ñu koy waxee lycée dafa am ay série li ñuy wax euh, li ñuy wax série li leen di jox du benn ñett ñoo fi ne muy série bi ñuy wax L ñoom ñu ngi am eh, juróom-ñeenti eh, juróom-ñeent fukki candidat ak juróom-ñaar am na série L2 ñoom ñu ngi am téeméer ak ñeenti candidat ak série S2 ñoom eh, téeméer ñu ñu ngi ci téeméer waaw avant bala bisu tey bi pare woon nañu lépp pour que bis bi di 1er juillet nga xam ne bac bi commencé na Sénégal yépp ah bu candidat yi ñëwee bu surveillant yi ñëwee ak euh, ñi ci des yëpp daal ñu fekk euh, candi euh, centre bi mel ni mu war a mel. yàlla def na wax dëgg yàlla yooyu yëpp kii woon nañ ko ba pare bi ñu ñëwee rek. Hmm. amuñu benn jafe-jafe wax dëgg yàlla ñi war a saytu liggéey bi tamit. ci ci classe yi muy muy surveillant yi ñëw nañu macha allah classe bu nekk fukk ak juróom lañu fukk ak juróomi salle bu ci nekk am na ñetti ñett ñuy xool élèves yi pour liggéey bi jaar pour liggéey bi jaar yoon. Euh, maintenant ci mbir recommandation yi nga xamante ni joxe nañ ko ci côté cas de fraude yi ay téléphones yi. waaw waaw xam nga xam nga diplôme mu bag bi dafa am dafa am solo dafa am solo solo bi dafa dem ba njëriñ bi mu am bitim réew tamit euh, bitim réew. sunu ndongo yi buñ ko buñu bu ñu amee loo euh, diplôme bi ñu am fi bac bi mën na mën naa tax ñu mën a dem jàng ji bitim bitim réew muy euh, muy Amérique muy Europe muy dëkku Afrique yu bari loolu bu mënee ne mu ngi tekki ne bac bi dafa dafa am solo dafa am solo te àdduna bi tamit nangul Sénégal ne bagam bi diplôme bi dafa am dafa am solo ndax am na réew yoo xam ne daanaka ku fa am euh, diplôme na muy eh, kii nu muy demee fraude yeeg triche beeg dafa dem ba léegi daanaka foofu ku fa am diplôme doo doo la mën a jëriñ euh, dara bitim réew bitim réew nanguñu ko parce que ñoom dañoo jàpp ne donc euh, diplôme bi sérieux wu ah Sénégal nag yàlla musal nañu ci ba léegi loolu moo tax office bi bac bi organiser bac bi wax dëgg yàlla di fexe fexe fexe ba at bu nekk bac bi jaar yoon. so loolu dafa am euh, dafa am solo pour euh, pour Sénégal ah loolu moo tax euh, ak jamono bi ni muy demee nii yi ci xew nga xam ne moom mën nañ cee xam lu lu ne te bu boobaa mën naa yàq liggéey bi muy lu dem ci luy nuroog téléphone portable walla lépp loo xam ne dafa mën a tax ñu ngi ciy def naka sax lu noonu ñu di ko tere ci sànni. yéen waa presse bi macha allah jàpp ngeen ci bu baax a baax ah, li ñu war a wax parent d'élèves yi wax nañ leen ko ndongo yi tamit dëgg yàlla ñu ngi leen di taxaw di wax pour euh, ñu moytu parce que kuñ ci jàpp euh, boo moytuwul euh, sa examen dina yàqu ren ji te boo moytu sax juróomi at mën nga ko toog doo doo defati examen loolu moom wax dëgg yàlla dafay dafay doy waar UGC Bambey TV mu ngi lay di la gërëm. ñoo di gërëm nah, di leen sant ci déplacement bi ah di leen ñaanal wax dëgg yàlla li ngeen sumb mooy loo xam ne dafa dafa am solo ndax dina tax am gis-gis ci adu bi ñuy ñu gis li fi xew di ko di ko yëg mu bañ a yem ci wax rek ah loolu wax dëgg ci di leen di leen sant ndax. Euh, ci seen euh, boor yéen a ngi def seen kéem de laay kàttan pour Bambey jëm kanam jërëjëf merci jërëjëf